suñu borom xaaruñu kenn nag suñu borom rek lañ jiital ndax dañ tooñ tiiñal ñu taqal ñu tuumaal ñu lu ku gis ni ñu def Ousmane Sonko xam ni tooñal bi musul am ci kaw suuf dugg kër jàmbur dajji buntu kër ga deful yëgul tindul laalewul nga jàpp ko jël yan jël indi dugal dugal ci kaso tàqale kook njabootam gis nga loolu lépp ñañ ko fi defoon yépp ci ci tooñeel dañoo am ndam koo jël nag fépp ci saayir ak ci baatin bañ ko fi defee Serigne tubaa yàlla da ko defal ndam à fin bañ ko fi defee El Hadj dafa am ndam à la bañ ko fi defalee ki nga xam ni moom mooy euh, Ablaye Wade dafa mujjee am ndam bañ ko fi defee ki nga xam ni mooy Nelson Mandela yàlla da ko mujjee defal ndam avant moo faatu amul kenn koo xam ni. def jël nañ la tooñal la teg la tooñeel teg la nattu teg la mettit teg la gàllankoor te muñoo te yàlla dafa lu la ndam kon allah kulli àll wallahi maa ko wax fii xawma kañ la mais Sonko day am ndam lu rëy yàlla dina ko bettee ndam loo xam ne moom ci boppam sax du ko foog gis nga l'oppresseur du musa am ndam ci kanam fii ak fu ñu jëm loolu la yàlla wax l'oppresseur kuy tooñ kuy tooñ tooñkat di tiiñal ak a taqalaate ak a jaay doole du mës am ndam fii ak fu ñu jëm te man maa la waatal ci darajay rasulillah ñëpp ñu jaar ci yoon bii suñ ko jaar am nañ ndam ci kanamu suñu borom am nañ ndam fii avant ñu fee jógee te billaahi dina am ndam ndam lu rëy dina ko am yàlla dina ko may incha allah ña nag di jéem a di siyaade ak di jéem a intimider les sénégalais sénégalais dañoo déterminé wu force lañ àndal courage abnégation bëgg-bëgg. protection d'un projet sociétal moo tax ñuy jaay seen bakkan gis nañ fi ay ay doomu aadama yi ngeen rey ci ay rey yu ñaaw gis nañ fi lu nemee gis nañ kan ngeen fi gis mu reculer kenn ci ñoom reculer wul déedéet tey la gën a ay tey lañ gën a làbbali tey lañ gën a gëm ni ndam day am incha allah tey lañ gën a farlu tey lañ gën a sabablu ci lu ñu nekkoon mooy xeex bu ñu nekkoon bu doon benn la tey dañ koy yokk fukk fukk ñi ngi ciy def suñu kéemtalaay kattan jeunes yi ñi ngi taxaw sur la makadam di ko teewal di xare di ci rey seen bopp te yàlla dina leen ci defal ndam malgré que nag dëkk bu nekk dëkkub seytaane la dëkk bu ne dëkkub naafeq la bëri na naafe naafeq xool leen li ngeen gis tey rek tey ba ngeen yeewoo homme politique yëpp fen nañ koo ci gis mi ngi naan ñu déplorons cet attentat terroriste deux morts et des blessés ne dañuy jéggalu ñoon dañ leen di ñaanal kenn ci ñoom lu génne mort Macky Sall def na lu mel noonu ndeysaan ay xalifa Sall def nañ lu mel noonu ñoom ñëpp def nañ loolu lim laaj leen ana moor yi fu moor yi dëkk ñun loolu la ñu wër moor yi lañ nekk di wër dama ne Khalifa Sall buy bind naan nous déplorons les morts ak ay les blessés nee mu génneel ñu benn blessé wala benn mort xanaa moor yi ñoom ay moor yi Burkina lañ jógee ak Mali xanaa après ñoom bu ñu dee dañoo sey seen seen koor yi dañoo sey ay journal yu sundur naan dañoo ñooñu dañoo mokk moxoñoo bu ñuul kooku ba mënatul leen xàmmee waaye lu ñuy laajte mooy boo leen yeewoo xanaa ay ay homme politique ay opposant ñëpp ku ne génn nous déplorons les morts nous déplorons cet attentat cet attentat meurtrier cet attentat suicide cet attentat euh, euh, terroriste waaye dafa am ay moor noo Khalifa Sall kaay génneel ñu moor yi Barthélemy Sota Diaz kaay jëlal ñu moor yi ak bëpp politicien bu taxaw fii kàcc ñeme yàlla bay wax ay waxu moor kaay leen wax ñu fu moor yi ne ay waay boo leen goree ñëw leen wax ñu fu moor yi ban quartier ñun ñu dem fa wala ñu ubbi leen kañot jox leen kon moor la kan la kan la fi sa papa dee ci accident boobu kan la fi sa yaay dee ci boobu kañ la fi sa frère wala sa sœur dee ci accident boobu kañ la fi sa maam dee ci accident boobu ñan lañ ba ngeen blessé la ñu wax ana moor yi fu ñu ne ci morgue ban lañ ne kañ lañ fa dee ak kañ lañ leen génne kañ lañ leen génne wala dañoo dañoo seey wala dafa lakk ba kaar ba seey jël ñi ngi ngi ci biir kaar bi ba léegi anamu ñooñu ñoo leen bëgg a jiite yéen ay politiciens yoo xam ne du ñu information dañuy toog fu ñu toog di fen ak a kàcc ñoo leen bëgg a jiite Khalifa Sall ñu dinañu jiite nii nit ki da ngay responsable boo déggee ay wax ab nit wax ko da ngay dem wala nga yónni say nit am vous avez les moyens ngeen politiciens yi yónni say nit ñu def seen i enquête ñu ne leen ñu dem ba gis ay ñi nga xam ne ay seede lañ ay témoins ñu ne man maa fa nekkoon moor amu fa bu ëllëgee doo ne ah nous déplorons cet acte mais mort amu fa mais nous déplorons ak Antoine ñàkk jom wax lu mu wax yéen ñëpp ngeen bind nous déplorons les morts attentat suicide attentat explosion bombe nucléaire attentat terroriste di kàcc di wax ay deux morts ana morts yi deux morts yi xanaa amuñu tur xanaa amuñuy mbokk xanaa amuñuy sant ana cadavre yi ana néew yi kañ lañ leen di suuli ban armee la leen di jël ñun loolu la ñuy laajte ana moor yi ku xam moor yi nañu woon ku xam turu moor yi boobu ba léegi tout vingt quatre heures de temps démb ba teg kenn mënul génne benn tur waaye loolu nan la mun a amee nan la mën a amee dëkk boo xam nee nañ ba bis dafa tàkk mu am ay moor te kenn xamul turu moor yi kenn xamul góor la ñu wala ay jigéen ñaar ñoo xam kenn daal gisu leen kenn gisul koor tur génn gu fa amul njaboot bu génn ne man maa dee rek kenn kenn réclamé wul moor kenn kenn baayam deewul ci kaar boobu kenn yaayam wala frère am wala mbokkam deewul ci kaar boobu te ñun ba léegi ay politiciens ñi ngi génn di ñu wax nous déplorons nous déplorons des moor nous déplorons politiciens yëpp génn nañ mais laaj leen leen kan ban moor la laaj leen leen ban koñ la nañ ñu génneel tur nañ ñu génneel sant xanaa moor yi dañu am tur sant nañ ñu wax ban armée la ñu ne kañ leen suuli nañ ñu wax néew yi ñoom fan lañ leen yóbbu même bu dee kër yi lañ sax nañ ñu woon néew yi wala ñu wax ñi néew yaa ngi fi wala ñu dem ci kër gu am benn néew ñu génneen ñu ko génneel ngeen ñu chauffeur génneen ngeen ñu apprenti mais ba léegi génneewul ñu benn dee ak kenn ko blessé blessé grave yi ngeen di wax génneloo gu leen ñu benn blessé grave bi ngeen ñu génneel putu putu bu nekk ci suufu tànkam bi kese mais vous parlez de mort mais vous n'osez même pas génneel ñu benn dee.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 duñu nit yu baax yàlla na leen yàlla xalak